gis ngeen nii lañ koy defee ci Balla leen jógee ñëw ci ki nga xamante nii ni mooy magu Balla Gaye muy lii kilifa gi nuyu naa maa lay fay waa wasaare ah ndeysaan tubaarkàlla macha allah gis naa li ngeen di liggéey seen wasaare bi daal tubaarkàlla macha allah li naan wasaare wasaare no moo ngi wasaare ba moo ngi wasaare ndax gis naa ko Amérique hmm. way ay TM moo fa nekk ay TM sekk ndeysaan booy bu ndaanaan boobu maa ngi koy nuyu en passage di nuyu waa yëpp di tey ngeen fekk ma fii sama kër rakk ji grand champion Balla Gaye waaw muy gàmmu ndax euh, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam guddeem tubaarikàlla macha allah ñëpp koy màggal tout foo dem këru diine goo dem ñëpp koy màggal moom nag mu toog di ko màggal fii ci këram da nga ne daaw ñoo ngi woon fan te waaw na ko defee kër Aziz ren mu nekk fii ci këram di ko màggal te euh, doomam ji juddoon du jouru gàmmu dëgg yàlla kooku mu koy defal anniversaire waaw ñuy gàmmoo waale tubaarikàlla lekk gars yi lekk nañ ba suur journaliste yi sax lekk nañ ba suur waaw ndax tubaarikàlla masala lekk nga ba sa gémmañ taq yaa ngi fomp sa caméraman bi tubaarikàlla lekk na moom ba gémmañam taq booy bi Lamine Seck lekk na tubaarikàlla ñu fi ñëwoon ñëpp daal lekk nañ sant yàlla rek dañ ko fekk ay déwén déwén waaw di ko ñaanal yàlla lu mu mën ren yàlla mën déwén lu ko raw ndax moom kàll yaakaar naa lii moom ku ko ci fekk tubaarkàlla doone ko acam ndax miin na ko xam na ko joxe ñam at joxe miin na ko nan ko ñaanal rek tubaarkàlla macha allah te ñu nekk tey la guddig yonent bi hmm? tey la guddig yonent bi tubaarkàlla macha allah te dégg naa fan yi passé tubaab yi xaw ma Macron xaw ma Macron la. kooku nu mu tudd Macron na ah Macron na ah at jabaram jooju niroog maamam. ak ña waaw ah kooku kooku moom lan moo ko dal. nee na muur bi bi jigéen ñi di muur day tiital xale yi. laa ilaaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa moom jabaram jooju mooy tiital nit ñi jabaram jooju kenn xamul lu muy ne jabar ji noog maamam. xam nga ne moo ko doon jàngal. jabar ji looloo tax kon kay maamam la kon kay maamam la maamam la kay. ah at kanamam googu kenn xamul lu muy nuróol muy noog waa jooju may bañ a rek. Hmm? ah bu waaw muy wax naan moom lu ko dal Sénégal la yëpp waroon jullit yëpp ñëpp waroon jóg mars lii du dëgg du yoon ñun ay jullit lañu ah waaye Macron billahi Macron dafa réew noo dafa réew weesu na tooñ dafa xamadi noq kakay la ñuy def <laughs> ba mu duul tey su billaay man su ma gisoon naa ko jongal. xam naa yow mii ni nga waxee ni la fekkoon foofu du doy. non du doy damay dem jot pale ba soo ba ñu dóor ma bal. man de bis ma ko jàppee dama koy jongal. ah waaw waaw tubaab bi jong kay ma jongal ko. tubaab fu muy jongo tubaab buy jong am na foo gisee tubaab buy jong Macron dafa jong jonguwul Macron daf ñoo yeb ñun ay jullit lañu liñ ci nekk dañ cee fee. ah kii man lu ma ko bëgg a wax xeeb ko waay sama xol dafa fees si kii euh, sama xol dafa tooy ndax li ma wax ah weesu na <laughs> borom ñaari kii waaye macro lu ma ko bëgg dama koy xeeb waay sa waay sama yaram dafa tàng waay mënu maa wax ñoo alxam ñun daal ñoo ngi si gàmmo gi di ko dund di ko di ko di ko yëg ndax ñun ay jullit lañu hmm? di ñaan ñu fekk ko ay déwéni déwéni déwén déwén ah waaye macro mi tooñ nanu ba ci kanamu yàlla ñu gis la mës nga voyager ñu gis dëkk bi fi mu toll ni fi mu toll xale yaa ngi jël gaal gi di dem nit ñaa ngi ciy dee boo amoon loon conseil loolu leen ñu wax li ma leen di wax xam nga soo ci waxee ñu ne da ngaa soxor soo ci waxee dara ñu ne dangaa ngaa soxor ndax dem nga buggoo kenn dem déedéet barki rasulillahi billahi wallahi wataalaahi laax ni man su ma su ma sañoon suñu doomu réew ñu toog ci senegal liggéey ndax man tukki naa gis naa la fa ne gis naa gars yi li ñuy daj gis naa gars wala kumpa ba leen fa yóbbu kumpa moo leen fa yóbbu waaye bis bu nu demoon billaahi di leen toog seen réew man gis naa ñu nekk ci àll bi suñu sañoon suñu mënoon a ñëw toog seen réew dañuy toog seen réew liggéey ndax Amérique wax dëgg yàlla Europe neexatul Europe neexatul waaye soo ko waxee ñu da ngaa soxor soo ko waxee ñu da ngaa soxor bu ko kenn dem man de wax dëgg yàlla ku bëgg dem yàlla na la yàlla yóbbu ci jàmm waaye bëgguma kenn jaar ci géej gi ndax jaar ci géej gi la sa bakkan la tey la sa bakkan la tey la sa bakkan la man ko tukki jaraluma ko man de gis naa ñoo xamante ne jaar nañ ci gaal gi nee nañ boo leen doon fayaat duñ ci jaar. ay wax nañ dëgg dafa neexul géej amul bànqaas géej amul bànqaas ah nan toog fii liggéey lu leen yàlla wërsëg la ñu jël ko ah man daal vraiment vraiment vraiment vraiment daal ma ah am naa lu ma naqari ndax su ma toogee man di dégg géej gi. ah sunu nit ñi xale yi ñoo ngi dem ci géej gi ñoo ngi dee ci géej gi vraiment sama vraiment sama yaram day daw. billahi wallahi taal la ma gis man la ma gis la ma gis man bitim réew su ma sañoon ñu toog fi liggéey ndax li ñuy daj bitim réew suñ ko toogee fi dañ koy def billahi dañ koy am bitim réew ku fa dem da ngay liggéey ndax am dara fii soo fi toogee da ngay liggéey soo bëggee dara ah. lan la ñuy wax xañ na xañ na salaire yi bokkul xanaa loolu la. waaye nag wax dëgg yàlla nag man daal man daal man daal man daal su ma sañoon daal moom ku mën a dem jaar ci kaw ci jaww ji nga dem waaye ba digalu ma kenn muy jaar ci ndox mi digalu ma ko kenn wax dëgg yàlla ndax bitim réew métti na neexatul coronavirus baa ngi fi wër na àdduna ah yàlla na fi jógeeg jàmm corona bi. ba dem démb dañoo dem fi nga xamante ni mooy golf seeti dëkkandoo yi nga xamante ne ñooy Balla Gaye 2 waaw jël ay témoignage su ñoom mais koo ci dékk mi ko rek danaan Balla Gaye ku baax la ah! Balla Gaye yow jukkoy mbër Balla Gaye tax loolu jooyatuñ ci benn loolu daa jara wax nag yooyu te loolu laaj ko wax ju yàqu la ma ay dem naa def micro trottoir nga laaj ko ñu loolu yow mii yow mii yow xaw ma looy def ak sa verre yi nga noog lu ma la mun tax loolu dafa jar micro trottoir picc yi picc yi naaw sax xam na loolu picc yi naaw sax xam nañ loolu xam nañ lan loolu li ngay wax euh, micro trottoir bi nga doon def ci Balla Gaye Balla kala tubaarikàlla macha mais am na ñoo xamante ne dëkkuñu ñëw Balla Gaye te bëgg na ñoo xam Balla Gaye bu dul làmb xam nañ kuy ah dégg nga loolu de waxuma ko Lamine na ko wax. lu mu wax. nee am na ñu ne Balla Gaye baaxul. sa diggante yàlla sa trial bàmmel ñi koy wax mooy euh, xanaa ñi ko supporté wul rek ñooy wax loolu ñi ko supporté wul waaye Balla Gaye nga supporté ko nga ñàkk a supporté di nga ko bëgg ndax loolu yàllaa ko def. xol baa rafet te taalibe la. loolu de Lamine na wax léegi. non bu yéen ñaare yëpp rek dimbali ma sa sikkim bi nga noog lu ma la mën ta wax wuyu ma yow laay waxal. loolu jarul micro a Balla Gaye ñëpp xam nañ jukkoom xol bi rafet na lu mu yor bokk ak jàmm ñi ah golf bee ma fa demee lan nga doon def micro trottoir ba nga demee def micro trottoir lu la wax. jooyatuñ suñuy doom. waaw jooyatuñ dëkkandoo ndax Balla Gaye. waaw noonu ko nun ko duñ ko jooy déedéet loolu yàlla la Balla Gaye moo ay ci jàkka yi moo ay ci daara yi ah moo ay ci maire moo ay ci paa moo ay ci jeunes yàlla ko yàlla lafal cet yàlla ko yàlla lafal cet te combat mi jub yàlla may ko ci ndam lu sedd guy